dinaa ko xamal ñaar. waaw te day nii rek. Barça mag soo nii muy nii loolu dëgg la. ah yoon nag. loolu du yoon a. mais Barça da ngaa war a war a xam si temps fi mu toll la. fi mu nii rek la mais tamit Barça xam ne ay temps xam ne ay nii nekkul ay mbiram dóor rek laa def dóor. amul ma keroog boobu si ànduma ko dégg naa ñu naan moo dóor. waaw oh, la dóor si ànduma ko dóor mais bi mu dóor du dóoru dara laa mi nii Real daa daa am jom di dóor di def. Real Real mosul passe la dóor moom. la dóor. voilà moom si la moom am na jom. on sait bàyyi neex na la. Eh, oh, ak bëgg xare bi. waaw namu naa leen de. namu naa leen de waaye may toog nga may mu toog. namu naa leen de. eh waaye nee maa ngi nii. mais yow Barza Barza daal ku man. non Marisu Marisu daa jonge rek. waaye Eva ko dàq de Marisu Eva ko dàq. da ngay yow da ngay Ngo. Marisu Ka wax la nag. Marisu yéen a rafet na ah. yow da ngay génn gàmm toujours yow da ngay. damay bañ bàyyi moo taxoon ma lay laaj man xanaa su ma laajte rek nga ñëw. jamono ji tàng na nag. caay yow lu muy dem caay yi. ah yii caay bi daa seet. ñaara. caay yi maam ci rajo jaxat ko ñëw. ñaara jaxate ko réaction. xam naa ko moo ko ñëw. ñaara macha allah gone googu ñëw rek leen. ñaara ñaara ñaara. Ah, est-ce que ñëw ko 75 bi. ñu ñëw jéem xool foofu tëll. 75 bi de bu ko ñëw 75 bi 70 bi. moom baax na nag moom baax na nag. ma xam ne moom moom seer na ko. macha allah. ak baaxul 50 bi waaw trop bi jàll dal na sama yow waaw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 juróom benn fukki dërëm matul moom li ci des bëriwul juróom benn fukki dërëm yi daaw ñeent fukki la am ñeent fukki dërëm la am moom yéen moom awutuma yéen wax ma bu baax neex da la xam da nga neex da neex moom a ah, neex moom dama kaa def moom moo tax juróom benn fukki juróom benn juróom la passe daal nga sele daal man fukk ak juróom la am fukk ak juróom booy da nga am da bàyyi sa doxali booy da ngaa salté si jëmm. bàyyi sa doxali booy da ngaa bëgg maa doxal da ngaa bëgg maa doxal. Ah, kon la ah, xam nga ne eh, eh, ah xam nga ne eh, xam nga ne bàyyi neex nañu. moromu baayam mm, aywa waxal waay waaw nekkul ñu toog fii di doxal. gis nga borom sax yow paa bi nga ko daa doxal day xale nag day xale nag day xale day xale baal naa la day xale. bàyyi bàyyi ñoo ah. xam waaye moom dafa may ñaar daa bëgg ñu bu ko defee faaw ñu am xaalis. ah dafa la booy booy booy. bari na yow. booy bi la. ah kon booy bi nga jotaay bi jóge fi jóge fi booy bi. waaw waaw waaw waaw. waaw waaw waaw waaw waaye nit ñi sa seen gi rafet na de. seet bi seen gi xaan sekk defar. Ah. dama kaa bëgg moo tax ma jëm turam. ku ku garaaw ko. Eh, la mais xam nga seet waaye dafa baax. mais xam nga tamit gars yi dañoo soxal. quoi waaw ah, da nga kaa ñaan moom doomu ndey maa jóg la doomu. nekk seeg kon man may. lii seeg la ay doomu ndey maa jóg la. bii moom gënoon daal si moom maa jóg nag moom maa jóg. moom maa jóg waaw ay lonko lañ. du tàggoo ay xarit la ñu bu bëri loolu la. bilaahi ay waay seet yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla ko yàlla defal jàmm macha allah. loxo bee set waaye tamit dinañ xamal ñaar. waaw tabaski gi fu ñu jaar am xaalis. waaw ah. père. waaw booy bi la. père. bàyyi neex na yow tamit nag bàyyi neex bàyyi neex na ah. nag. bàyyi neex booy fu mu fu mu mën nekk moo dox. Ah, xam nga fu mu di nekk. toog fii di doxal ñu xanaa kay ma dem fa taale ñam mu jaay ma puus rek bu ma jaayee puus mu puus ko sama taat yi ndaxte moom fan yi moom day day day génn ay kii rek waaye tey maa tey doxul.